asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu bokki jullit yi fi daje yépp rawatina nag bokki taalibe yi di jiital ci nuyoo bi sunu bokk yu tedd yi teew di alxaaji Moussa Cissé mi ngeen dégg léegi teg ci alxaaji Mohamed Mahmouz mi ak sëñ Thierno sunu waajur wi ak ña demee ni ñoom di bàyyi xelit sunu bokk ya teew ne di soxna Bintu moom sëriñ Fadilu ak ami seex ak am Amsatu Jóob ak ña demee ni ñoom di samay ñenn ñi di samay sët ku ci nekk tànki kóllëre indi la fii li ma waroon a waxtaan wépp nag fi fi nga xam ni fa lay jëm moo ci sëñ Tuubaa rek ak doxiinu sëñ Abdu Lahat ci sëñ Tuubaa bala may agsi foofu nag li may jëkke mooy ak cant ndax jaam sant sant dafa rëy fi suñ borom te lii ma sama bokk yu tedd yi lebal man jiwuma leen ko ma jëkkee alaaji Moustapha Cissé wér gi yaramam mayu ko ko waaye digganteem ak sëriñ Abdou Lahad la seet ak la mu seqoon ak moom ci kóllëre ak li mu seqoon ak baayam ndax sëriñ Amadou Cissé moo doonoon wëllëre sëriñ Abdou Lahad ni mu ko waxee bi mu fi jógee mu sof ko ci alaaji Moustapha Cissé mii nun nu nekk fii nekk fekk sëriñ Abdou Lahad doon dundanteek moom te jege woon ko lool itam nag tam daa wax ak nun bu baax a baax itam nag alaaji Moustapha Cissé mii tey kër sëriñ Abdou Lahad miin na ko lool amul guddi amul bëccëg amul benn waxtu boo xam ne dikk ko fa di déyaale sëriñ bi ci lu mën a doon kon tey daana xat ba jataay yi musuma ko def waaye man damaa te bëgg dara lu may sëñ Tuubaa te jax ci tàkk ay nit it sañu ma leen a woo ngir jëmmi sëriñ Tuubaa ba noppi waxuma ak ñoom ci sëñ Tuubaa kon sëñ Moustapha bi ma la santee bare la cant gi li ma war a mujjee laay jëkkee ndax sëñ Abdul lépp rek dañ koy wéer ci waxi sëñ Abdul dafa ne woon saa bu la nit defalee lu ñëpp gis war nga ko gërëm ba ñëpp dégg ko te dafay am jëf yoo xam ni man eh, ñi ko jëf man mi ñu ko seqal gannaaw waxuñu ko su ma dees gor war naa ko seere bisub sëriñ Abdul Ahad bii tey bala may agsi ci taalibe bi ma jiitalee sëñ Moustapha Cissé ak sama mbokk bi nga xam ni jarul tudd sëñ Mahfous di sama xarit nga xam ni waajuram wax naa ko ba tàyyi bi sunu waajur di ñëw ci sëriñ Abdou Lahad mag ñi ni ko li aaday wolof di def kan kan nga koy féetali ci ñi nga bokkal sëñ Touba dañuy may moona mu ndaw mii di su ayut moom a gënal muy waajur sëñ Mahfous loolu rek la ñuy dundalaat sëñ Thierno nag digganteem ak sëriñ Abdoul ak wejuram ak sëriñ Abdoul defe naa ni dinaa ci indi benn firnde rek boo xam ni su ma ko waxee rek du jar sori mooy sunu wéyjur nun ci kër bàyyi sëñ Thierno la nekkoon ngir diggante sëñ Omar nu mu defoon sëñ Touba ba def ko sëñ Abdoul Ahad sëriñ Sidi mii tey ci kër bàyyi sëñ Thierno la juddoo. fa la ñu ko ngénte yi ci néeg boobee tey fa la sëñ Cerno mi dëkk ca gelongal loolu doy na seet kon fii bu su fi toogee ak lu mu fi wax ak lu mu fi def lu mu saj li ma waroon mujj nag laay jëkkee muy cant gi jëm ci autorité yi bi ci jëkk nag mooy ki yàlla dénk réew mi Macky Sall as gor bu teraanga jógee jëm ci yow bu ko nëbb teraanga yu war sama digganteek moom rek jëf na kook man te man ak moom ak yàlla ak kam yabal keneen xamu ci dara kon dafay rafet ma seede ko ci kanam mbooloo mi ñëpp xam ko cër bi ma sédd xam naa bi ñu dajee ci Mauritanie it waxtaan nañu waxtaan bu yaatu woo xam ne xëy na xatuk jamono moo wax waa jàpp waaye ni mu ko bëggee woon su ma ko dee defee woon samay tànk ca pale ba bari na lool waaye xatu jamono jàpp waaye nag teewut seereel naa ko cantam seereel ko ngërëmam ci kanam ñépp ndax dakoo jëf ci man ma seere ba ca topp kuy parti politique ci réew mi sa ndaw teew na fii tey nga jëflanteel Ousmane Tanor da nga fi jiitu ak njaboota Idrissa sekk ay délégation ma ngi nii ci sama ginnaaw bàcci Gajaga ñoom ànd ak jëfam yu ma sëkk ngir loolu lépp ngir kóllëre aku aku aku seq ko war man nag defuma cérémonie Pape Diop président assemblée fi la yem bi nekkoon ancien président ak ñeneen ña dem man nag defuma cérémonie cérémonie benn lay doon ci kër Cheikh Abdou Lahad lay doon kilifa gi it genn la muy Serigne Sidi te foofa la nekk waaye nag sañ na maa wax ak taalibe sëriñ Touba yi nga xam ne amuñu lu dul Serigne Touba te yaakaar. saña wax ak taalibe Cheikh Abdou Lahad yi nga xam ne amuñu lu muy jëmmi Cheikh Abdou Lahad te Cheikh Abdou Lahad ma jege woon ko lool tam daan wax ak man te ma xam ni saa boo indee wax Cheikh Abdou Lahad nettali ko njariñu taalibe yëpp lay doon bi ci jëkk moo li sëñ bi doon tudd lay firi tuuti rek saraa ko te moom ko la sëñ Ceerno wax léegi ci sëñ Amsatu Jaxate moo ma nettali loolu mm-hmm. mu ne ma bi nu sëriñ bi di yebal ci sëñ Amsatu Jaxate mm-hmm. man ak sëriñ Soxna boog sëriñ Saliou ak sëriñ Abdou Samad dafa woo sëriñ am surtout ma danoo indi Touba maam Thierno Birahim dalal na sëriñ am surtout dinu jàngal ab diir mu woo ko ni ko seetal ci réew mi wax koon kenn ci biir Sénégal ak fu mu mën a doon ku ma leen mën a xamalal alxuraan ba ñu wattu ko te nga te te koo seet ba gis ko nekk saa bu ñu wattee alxuraan àjjanay ëllëgam maa ko ko waral loolu la sëriñ Touba wax ñu yëkkati leen nag teg leen ci loxol sëñ Alsaan Jaxate mu di leen jàngal njàngeen woo xam ni météo na lool ndax waxi sëñ Touba ku ne xam na ni lu sëriñ Touba dëppoo naa kun fa yëkkoon dayam sëñ Alsaan nag duñ leen di jàngal tawfeex fu ne dafay jaar nee na yàlla dogal moom xelam naqar bind bu tooy da cay yandu ba jant bi sow nee na demoon na sax tuuti sëñ Saliou raw ko ci àll wa sëñ Souhaïbou raw ko ci àll ne sëñ Alsaan ñëw ci sëñ am satu jaxate ni ko ñii de moom wóor na mën seen alxuraan dana mat assuré naa ko muy Abdou Lahad mi nag jaaxal ndax bindu bu tooy ci yendu ba jant bi mu ni ko kon da ngay nekk bu ma ci sëriñ bi ko nee na mu ñëw ci sëñ Touba njaareem sëñ am satu wax ko ko mu ne ko soo dee del si àndaale nee na sëñ am satu dem yëpp moo ma ne fi loolu de man na sëñ am satu yi dem yóbbaale nee na li may doon doon ndaw ba tey jii na sëñ bi tooge woon maa ngi janoo moom mu ne bi ma agsee sëñam sotu andi ma ma toog mu ne ko yóbbu ko mu jàpp nee na ma dem jàpp delsi ne mu yëkkati kaamilu alxuraan ni ma téyal ak sa yaari yox ni ma téere bii nag mayu ma la ko saraxu ma la ko jaayu ma la ko dama la koo lebal te danga may fay fay gi may bindu kaamil jox bis boo ma ko fayee nag su boobaa danaa la bijjanti ba Touba nee na ni ma ŋaal nee ma nga mu jàng taflit sama digg nee dindi kaala gi féete kaw dindi ko ca topp dindi gi ci biir nee jox sa ñam ni ko yóbbu ko ci soxna Fat moo jur soxna moomi mm-hmm. na ko dog te bu mu ca wàññi dara nee na mu def ko indi mu joxaat ko sëñam sutu la ko teg ci loo xam ne ko ànd leen te dellu boo delloo bala moo jàngati na ko jiitlu mu ni bis boobee ba ma agsee bind bu tooy danañ ma ko jox ci bis ñaari yoon mu ni bis boobee ca laa noppee gis mbind mu mbind mu ma mbind mu ma gis te xaw ma ko ak lu ma xam fàtte ko moom ndeyjoor ak moom càmmooñ nag laa ci yamal loolu moo ma ko li ci làmmiñ wax loolee itam nag baaxul sëriñ Tuubaa ko mayam dëbb na ko ci baatin boo xam ne jéggi na doyee te li may wax seere la ndax ñam ko seqaloon ñu ngi dund ñëpp a ngi fi tamit man du ma wax lu ma xamut te loolu lépp nag mi ngi ci baaxu Sëñ Tuubaa rek ci Sëñ Tuubaa rek la lépp yi jàll alxuraan joojee nga xam ni yàlla yàlla dogal na mu ñëw na góorgóorlu ab kaamilam gaaw mu bind kaamil ba mu àgg ndeke sëriñ bi lu mu wax mun na ca dara la mu ko doon wax ni ko boo ko bindee ba andi ko dinaa la bijjanti ba Touba mooy dëppoog wàccu wàccu sëriñ bi sëriñ bi fanaan si Touba mu jébal kaamil bi sax mu sax noonu la demee te moo ma ko ci lamiñ ma ci biir loolu nag ci loolu ko sëñ Touba defal dem na ba may ko ci alxuraan mayuk boppam koo xam ni ba tey mu ngi dellu sëriñ bi am na fii bis ñu ko fekkee ngi dund yaakaar naa bari na doy na ci kenn rek ma cité ko Modou Mamoun Cala ñang sëñ am sa tum daaru musti bi Cala gone yii fi jógee léegi seen bàyyi sëñ bas moom Cala fii ci këram muy guddi fukki guddeeg ñaar ci weer moom mbirum sëñ Tuubaa ak alxuraan daf ko yàgg ñor foo ko fekk moom lay jël di ko teg di ko déglu ñu toog muy teglu alxuraan fekk booba dafa def ay rajo ci biir këram du Maam di ko tege ci néeg ba fa ne mu toog di ko déglu toog di waxtaan ak ñoom ci sëñ Touba di ca dem di ca dem di ca dem di ca dem ba mujj mu ne tekk waxatu ba mujj mu jooy ba mujj mu ne ñokket dugg ci biir néegam keesu war ga la fa gis mu yanoon ko boppam waaxu ba ci néeg bi ñuy tegee njànge bi mu fëgg ci bunt bi ñu ubbi bunt bi mu jël keesu war ga sànne ko fa wanaat gannaaw rongo ñooy mu dellu si waat duggaat ci néeg bi fëyite poos la ca nekk lépp mu nga balaat ko boppam mi ngi leen fi bàyyi ñu toog de waaxuwaat ba ca néeg ba mu fëggaat ñu ubbi mu jóor leen ko dikkaat tàppaat kër gi ba mu jeex yoratul lu mu joxe mu fàttaliku ni sëñ Basiru Jóob booba mooy xalifa sëñ Masamba Jóob joxoon na ko nag ca takk takkusaan bind ko ci bon mu dem jëli kayit ba dikkaat fëggaat nee ni leen sëñ Basiru Diop fàttali ko woon naa ne a woon na fi nag ci ngoon dem leen jëli nawa ci guddi gi rey ko ci guddi gi lakk ko ci guddi gi nag woowee rey nañ ko di ko lakk te fajar jotul sëñ ñu dem way ko mu ñëw ñoom ñëpp ñu bokkatoo mu ni leen man de damaa defe ne damay bëgg a dof ñu ni ko déedéet de Mbàkke loolu day du la dal mu ni lii ma doon def dara lu ma ci tey amu ci naar bi jàng ma di ko dégg dama dem ba nga xam ni aaye bu muy bëgg a dafa am doon am xacc ci digg asamaan si ni ma aaya boobu nangam a tax suñu boroom wàcce ko te ci nangam la jëm loolu laa xajootutoon loolu laa xajootutoon looloo waraloon lii ma def ma di ko def léegi nag loolu lépp nag mosu taxut mu mas gis dara taxul mu mas caa bëgg dara lu may doon taalibu Sëñ Tuubaa mu koy liggéeyee rek gannaaw ñoom ñi suñ Tuubaa jur nag ñoo ne foofu hmm. parce que man nun ñii nga xam ne duñ dara ci suñ Tuubaa lu ma ay bi rek kon jataay bi li ko indi dëgg dégg dégg mu ñu fàttali ko suñ Tuubaa jox ko cëram te xam mooy kan ndax nun ñii fi nekk ñépp tey ku ci ne am nga rafet njort ci sa ëllëg taddu sag jaamu yàlla la ko may nee na itam ci làmmiñam jullee ko war a defee la ko sëriñ bi fekkoon waaye mosutee faj aajoy kenn defal nga def bàyyil nga bàyyi taalibe day tënku ci ndigal Sëriñ Tuubaa mi nu yaakaar it bind wax ni taalibe war a mel mu ni taalibe day day mel ni mu néew ci loxo yi ña koy sang du wax ni jëmaleen ma fii du wax li jëmaleen ma fii moom nag Seex Abdul Ahad ci boppam fam ci ne woon ak ci digganteem ak Sëriñ Tuubaa gannaaw bu sëñ Touba digalee taalib li mu leen digal danaa ci ñëw sëñ Touba dafa bind leer wax ko muy lu leer digal taalib yi lu leer nit nag boo ko yaakaaree te fa mu tànk bi nga bëgg faa teg sa tànk fa mu nekk ëllëg nga bëgg ko fenk da ngay xeeñtu mboor lu mu dénk taalib yi aleykum bi sarihatil mutahara dénk naa leen sarihatul mutahara daal di firi nag sarihatul mutahara daal di wa sarixatul mutahara maa fil kutubil munassala sarixatul mutahara mooy li jóge ci téere yi asamaaw yi daal ni wal xaqiqatul munawwara nag maa sabata fi lawhil mahfuz mu ne xaqiqatul nag mooy loo xam ne ci lawhul mahfuz la nekk sawa un nasala aw lam yansil bi moo xam suñu borom wàcce na ko wala wàcce mu daal ni aleykum bil malikiyati moom la Sëñ Tuubaa wax dénk naa leen ngirum malik ngeen sàmmanteeg moom daal ni in raaytum afhalu shay'an wa lam amurukum bih faxtasiru anhu dénk naa leen Malick bu ngeen ma gisee man sama bopp may am lu may def te gisu leen ko ci téerey Malick yi walam tarawhu fil kutubil malikiyyatil fiqhiyya faxtasiru anhu te gisu leen ko ci téerey Malick yi fiq yi gàttañ leen lu ci loolu bu leen ko def lu tax fa inna li xasaa'isa la amurukum bi an taxtadu bi fiha ndax sun boroom daf ma jox ay jagle yoo xam ne maa ko jagoo yoo xam ne du ma leen digal ngeen di ma roy ca loola xaalisatan laka min dunil mu'minin ji sun borom waxoon yonente bi Sëriñ Tuubaa daf ko am kon nag bu nax suñ bopp nan góorgóorlu ci liggéey Sëriñ Tuubaa am déet rek Cheikh Abdoul nag bi mu toogee li mu njëkk a def li sëñ Thierno doon tudd dafa bind nit nag lam ne woon maane bu teewee moo mbind moo gën a wér lépp ci diggam ak sëñ bi mu defaree daari kaamil ji ba noppi def ci téere yim ci def ba noppi def ci lem ca def ba noppi dafa bind teg ci nag ngir bëgg a leeral daa di ni wa saraytu haasihi lmataabiha wal aalaati taabihata laha jënd naa moolukaay yi fi ne am na yaa ngi dégg li may ak mbooleem li aju ci daara ji wa jaxaltuha wa bi doon istisnaa def naa ko ci lu du ma ci settee dara wa kullu ma sadara wa ma sa tasdur ak lépp lu ci xaw loo xam ne génne na ci ak xaalisat na caa génn ëllëg hadiyatan xaalisatan li seexal xadim mooy addee seexul xadim laysa min mumtalikaat yi doon bokkut sama moomeel wala min mumtalikaati ahadin siwa nekkutu moomeelu kenn ku du seexal xadim kon nag fa kullu man waxaa xaalaa yeddi képp koo xam ne am na lu bokk ci daara ji dugg sa loxo fala yatasarrafu fii illa fi ma yuhibbu sayyidul xadim mooy lépp lu bokk si daara ji bu duggee sa loxo bunti jëfandikoo lu dul dugg sa am déet kon kooku mooy sunu référence bi ñuy màggal tey di ko fàttali war a jàng ak ay jikkoom ci fi mu teg sëñ Touba. war a jàng ak ay jikkoom ci fi mu tegoon doomi sëñ Touba yi doy na ca tegtal wax naa ko miraaran ngeen dëkku te lu ma ci wax rek lu lu ma saraal la ci boppam ma xam ci wér bëgg nit ñi jariñu li ci ëpp mooy tax ma di ko leeral ndax ngorom te Sëñ Tuubaa fam si teg Sëñ Tuubaa dafa rëy waxam it naqari dégg ndax man daf ma nettali ne ma bi ma jëkkee toog fii discours bi ma jëkk a def jëmee ko ci taalibe Sëñ Tuubaa am na lu ma ca waxoon loo xam ni ba fii mu ne nit ñi xamul la ma si loolee ma waxoon gannaaw man masas ci buntub dee gi wóor na ma ni mag dana dee gone di dee ku dul mag di gone di dee waaye bi ma xasee toog ci jotaayu sëñ Tuubaa bi di liggéeyal sëñ Tuubaa sama wax joojee la ma ci jublu woon damaa jaayanteeg sëñ Tuubaa dee su ma tàggee doomi sëñ Tuubaa joo xam ne fi ma toog mën na fee toog laa jublu ci la ma doon wax moom la pas-pasam rek fa ne jumaa ji ba mu koy tàmbali. àlla seeni nii mooy sama seede da ko woo mu ñëwul mu jónni ko mu dem toppatoo ji mu toppatoo ba dikk mu ne ko àllakaay mu dikk mu ne ko jumaa ji di ni sëñ Tuubaa bëgg mu mel ni lépp sëñ Tuubaa wan na ma te bala kon ngaa xam sama positif ci jumaa ji sëñ Tuubaa ji mu mel na moo a mel ñu ne ma Abdoulaat balaa jumaa sëñ Tuubaa jee mel na sa roo gi nga joxe sama roo bi du gën néeg bi ma toog fii rek lan war a nekk doon taalibe sëñ Tuubaa si leneen lu ñu def rek dañuy nax suñu bopp ñu def si max loolu laa gis ma ndax dadaa wax ni jaamu yàlla mën nga ko def ba noppi suñu borom delloo ko ndax ni ko suñu borom santaanee defe ko noonu yombul mu jullee gu war a yi ci war yépp mën nga ko def ba noppi suñu borom delloo la waru bama ibadatin kasira qad afsadata laxsatun xaqira dafa yomb ci jaamu yàlla la yomb mu ne nag gan kon loolu lépp bu ci fekk am nañ jëwriñ joo xam ne suñu borom nangul na ko ba noppi nan fab suñ jëf tabal ci biir jëfa mu ni soo bañ a jeexal da ngay booleeg yàlla alal yàlla du jeexal dara ba in min sayin ilaahi danaa xasaa inu ku booleeg yàlla alal dootoo dootoo jeexal dara kon lu nuy def nan koy def ngir sëriñ bi di ko jébbal sëriñ bi sëriñ bi nangul na ko agaleel na ko ci seen borom man daal fii laa nekk te bëgg nu taalibi Sëriñ Tuubaa yépp nu maa ko fi nekk dolli war ma nag sëriñ bi dolli war ma ji ci sëriñ bi bu baax a baax a baax ndax dëkk bii nu ne li ko sos ma tënk ma tënk tëdd ndax noppi dëkk bii nu nekk jaamu yàllaa ko sos mooy tub tooñ sori bàkkaar moo sos dëkku dëkkub Sëriñ Tuubaa képp ku fi nekk te bëgg lu neex Sëriñ Tuubaa da nga sax ci dimbalee ko sëriñ bi liggéeyal ko moom nag Alaaji Moustapha bi mu teree tere yi mu tere ci Touba te gàll ca bakkanam yàlla baaxe na ma mu wax ma ci lu yéeme ndax dafa def tere yi ma def ñeñ ma def ñetti bayit ci dëkk bi yët ko ko ngir rek doon jabbut ba ma ñëwee mu xool ñetti bayit bi ni ma ah, yow kat ku muus nga xanaa dañ laa déy dara man ko ah, man kay kenn déy ma dara dama doon jabbut rek ma wax ca bayit ya ni ko tuuba ada at xural islaami jumlataha maa xaafa saakinuha salaat salaati tuuba leeral na dëkki lislaam yépp te fen te ku dëkkee tuuba dootoo ragal buur bu lay song si guddi li saakiniha xusuusun laa li xayrihimu mimma sayaatihimu min sel aradin ñi dëkk tuuba am nañ ay jagle yoo xam ne ñu bokkut ñoom ñoo fa dëkkul amuñu ko loo xam ne mi ngi leen di jóge ci borom suuf yeeg asamaan jagle bi mooy lan faasoo bi kaw ni xadimil Mustafa lahumu jaaran fa ansaahumu kullal basatin ndax dañoo texe ci dëkkaaleeg xadimal Mustafa mi nga xam ni ku dëkkaaleeg moom te lim lay digal nga def ko lim lay tere nga bàyyi ko dana la fàttaloo sa tooli bàyyi ak sa tooli maam yi ndax teraanga ji ngay wut àdduna ak àllaaxira da ko fi bëggoon naa gën a xuus ci mbirum sëriñ bi waaye des na ca ndax ni jataay bi demee ak na mu xate kilifa yi teew dama koy dagg bi ñu dem julli yow yi Alaaji Mustafa ak kilifa yi ñoom ñëpp ñu julli timis jataay bi continué waat seexu naa mii nga xam ni moom doomu sëriñ Sidi la ma yar ko ma boole woon ko ak dongo yi ñu ànd liggéey bi ba liggéey bi sottee noo xam ni kawe na sama njort seexu naa am na lu ma koy waxan waxloo mm-hmm. ak mbokki taalibeem ak nu mu war a doxe ak ñoom ak lu ma ko digal mu wax ne bu ko defee ci guddi gi nag njabootu sëriñ Touba gépp fii la ñuy reere si mm-hmm. bu ñu fi reere see ba noppi nag mm-hmm. am na beneen waxtaanaat bu ñuy defaat ci guddi gi mm-hmm. sëñ saraa Samb mi moo koy continuer waxaat ko ci dunduk Cheikh Abdoulaye leeral nit ñi gën koo saraa ba ñépp xam li ñu war a roy ci sëriñ bi su ko defee nag ñu fu door a fanaan njàng bi ba bët set maa ngi ñaan nag yàlla ci mi jeexalu dara di ñaan yàlla it ci barkeb Serigne Touba képp ku ñëw ci màggal gii ak jéego boo ci mën a jégg mu faral la say bàkkaar àddina ak Allah képp ku ñëw ci màggal gii it ci barkeb Serigne Touba mi nga xam ne amul lu may moom li ngay yóotu àddina ak àllaaxira Serigne Touba defal la ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.